Ordi Ngom Ordi Masina Ñaxar Masina Ñaxar ten refu nene pour tracteur ka ngorgoor ka xaye Ordi a lupa janole Masina Ñaxar a lupo jan waaw waaw Ordi a lupa jan ka ɓek ngor ke fene pike ɗerna ɓeride maaga waaw waaw Ordi a lupo jan oye ke refu Masina Ñaxar ndeysaan ordinateur a lupo jan waaw waaw ordinateur a lupo jan tëralu ko ojan aha waaw waaw première édition feten jangun deuxième tournoi fe jak seta garna ka yen final ka ye tamato garlu ko jan ndeysaan foof no ordinateur waaw waaw ordinateur mu nekk noonu